monsieur Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay. Mm-hmm. ngay vice président regroupement des boulangers du Sénégal nga xam ne euh, mardi bi fa yéene nañu dem euh, mouvement d'humeur ci diiru euh, ñaari fan ñu bëggoon a xam lan moo waral seen li nga xam ne moom ngeen bëgg jamono ji ba tax ngeen dem grève. waaw dañoo bëgg ñu yokkal ñu prix mburu bi li muy jar wa ilaa ñu wàññil ñu farine bi. li ko waral nag mooy ñaari at ñi ngi négocier ak état bi nga xamante ne farine yokku na en deux mille dix huit fin deux mille dix huit yokkuwaat en avril deux mille dix neuf mm-hmm. boulanger yi dem grève madame monsieur le premier ministre d'alors daa di woote ñu def ay concertation def ab comité comité boobu moo gisoon ne mburu dafa war a yokku mhm. ñu dem ba ca cappaandaw ba état bi yokku ko ndax nee na bien social la day loo xam ne àdduna mën a xaw ma nu ko mën a firee mhm. mais bu fekkente ne loolu a mënu ko na ñëw na wàññi prix farine bi bu ko defee am na fa ay taxes na ko dindi lool dong la ñuy réclamer. kon loi du marché amul dara li bu dee état dugal na ci loxoom. xam nga euh, dëkku libéral la ñu nekk. Mhm. libéral mooy nit ki bu yoree a produit war na sañ ne lii laa koy jaayee bàyyi ko mu jaayee lool bu gisee ne am na ca bénéfice. Mhm. mais bu fekkente ne état dafa jël ñi nga xam ne ñooy defar farine yépp mu ne leen lii ngeen ma mën a jaayale sama euh, farine donc ñooñ moomatuñu farine état moo ko moom. Mhm. bu ko defee nag sañatuñu wàññi seen njëgu farine. ndax ku ko ci def ku ne am nay sanction yu war a tege sa kaw loolu nag dañ koo contre ñun ñii na état bi bàyyi ñi nga xam ne ñooy fabriquer farine. Mhm. ñu jaayee prix bu leen neex bu ko defee ñun concurrence bi ak li nga xamee ne qualité dina am ci biir produit bi bu ci loolu amul na état nee na fixe na fixé na prix bi parce que homologation la ko def. Mhm. te mën tawañi mburu mais na dindi taxe yi am loolu am na Côte d'Ivoire am na yeneen réew yoo xam ne état bi lam ca moomam moom la dindi ndax dafa xam ne ñun ñiy utiliser farine bi. la nga xam ne moom la ñuy fabriquer muy mburu bien social la. Mhm. boo defee day dindi exonéré exonéré bi. Mhm. loolu mën na nekk. bu weesoo Grands Moulins du Sénégal ndax am na yeneen entreprise yi nga xam ne dañuy couvrir euh, Sénégal ci wàllum farine. waaw juróom-ñaari entreprise la. juróom-ñaari yëpp kon bëri na amul monopole. Euh, amul monopole ndax kenn ku ci nekk ci ñoom dafa am quota bu la état tëralal. Mhm. quota boo xam ne mënoo ko weesu tey boo demoon ba am demande bu ëpp li nga xam ne moom nga moom la la état tëral. Mhm. mënoo mënoo mënoo ko fabriquer donc loolu aussi c'est anti libéral. d'accord vraiment système bii ñu nekk nii liberté amul ci wàllu farine. Mhm. na kenn ku nekk liggéey jaay am sa bénéfice mburu bi même chose. kon daal bu ma la déggee ngay wax. état daal mooy responsable. état mooy responsable ci lépp xam ngeen lu tax. Mm-hmm. parce que système boulangerie c'est une man financière dafa bëri xaalis bi ci état di am. Mm-hmm. actuellement. état bi ci TVA bi boo xoolee quota yi nga xam ne entreprise bu ci nekk mi ngi mm-hmm. koy fabriquer moo war a état jël bëtam tek ko ci affaire minaudière yi mooy ni ñuy fabriquer farine. ak ci mburu mi ak ni ñuy fabriquer mburu donc état loxoom la ci teg mais da ko moomee ne xam ne moomee ko benn secteur. di buum di buum du ñu déglu du waxtaan ak ñun fii mu toll nii ñëpp a ngi ci problème yoo xam ne kenn mënu koo wax te amuñu sax interlocuteur bu ñuy déglu lool aussi dafa métti. kon bu ma la déggee ngay wax wàññi mburu euh, njëgu baguette bi dina bokk ci li saafaraal jafe-jafe yi. daanaka saafara saafara ne lépp bu boobaa lafay des réglementation bi dina ko mën a bu tey jii boo déggoon ne yekk nañ mburu cent soixante quinze dootoo dégg benn boulangerie buy wax. parce que ñi ngay liggéey ñi ngay am seen i bénéfice di créer ay emploi mm-hmm. di liggéey di fab di di cotiser normalement comme il se doit parce que à l'instant là ñoom ñëpp amee nañ ay bor ci euh, euh, structure sociale yi kenn mënatul cotiser kenn mënatul donc créer emploi bu bees loolu sax y a blocage. Mm-hmm. loolu nag bu fekkente ne mburu yokku na tey jii tey jii. problème yëpp saafaru na presque. à quatre vingt quinze pour des nag réglementation moom moo koy saafara. moo koy saafara monsieur Faye bu weesoo euh, lii di njëg lii lan mooy jafe-jafe yi dëgg nga xam ne moom ngeen di jànkuwanteel. bon am na yeneen jafe-jafe lu mel ni hygiène bi hygiène bi euh, nañ ko wax te dee. Mhm. dëggantaan ci boulangerie yi c'est un problème. Mhm. mais kooku déjà état mi ngi ciy liggéey boulanger en ci seen bopp ñu ngi liggéey loolu moom amul benn problème. réglementation bi mën na ko lijjanti. Mhm. ñaareel bi nag mooy euh, xaajalikoo gi nga xam ne am na ci diggante euh, regroupement yi nga xam ne ak fédération yi nga xam ne ñoom ñoo représenté boulanger yi ci kanamu état. Mhm. dem nañ ba am ñaari dichotomie bi ci njëkk. mooy ñoom ci seen biir amoon nañ benn protocole bu ñu doon liggéeyee. Mm-hmm. dem nañ ba protocole boobu ñu tege ko ne kenn ku ci nekk di demee sax idée bopp. ñaareel bi mooy président yi ko jiite dañoo dem ba am distance bu rëy bu am seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy boulanger yi acteurs yi. Mm-hmm. bu ko defee dialogue boobu nga xam ne amatul ci diggante président yi ak base bi ak itam ñaari fédération yi séddale ko tax na ba benn décision mënatul arranger secteur bi. lépp lu nit def rek am na keneen ku ne loolu arrangé wu donc finalement Uh, y a un autre problème beneen bi nag ñetteel bi mooy ni nga xam ne contrôle yu bëri yi nga xam ne dañ koy def ci boulanger yi vraiment loolu aussi war na dakk boulanger warul am des contrôles systématiques mensuels boulangerie un contrôle par mois warta nekk mais da ngay gis ne weer bu ci nekk chaque service su état dana ñëw taxaw. tey commerce chaque mois mu dugg ci dëkk bi raafle boulangerie yëpp kenn ku ci nekk deux cent mille cent cinquante mille boo fay duñ la ubbiwaat ah même chose service du d'hygiène et cetera et cetera kenn ku seen bénéfice dem fay seen i taxes dem ci yi ñu fay lañ fa amee loolu mooy norme kon bu ma la déggee ngay wax xaajaloo gi am ci acteurs yi euh, boulangerie bi am na lu muy euh, yàq wala sax am na ay njeexital ci nan ngeen nammee secteur bi doxee. Euh, yàq na fi lu bëree bëree bëri ndax ay nit mënuñoo bokk ànd am benn vision déedéet kenn ku mhm. nekk da ngay indi sa vision ñu boole vision yëpp fexe monter ci loo xam ne wax dëgg ne xel dana arranger secteur bi. Mhm. mais bu kenn ku ci nekk dañ ba culte de personnalité moom lay mujju di doon ndax maa la gën a nangam maa la gën a finalement loolu moo yàq secteur bi am na jeexital dëggantaan ndax état tey jii bu ñuy wax ñiy wax ñi war a wax sax bu ñu waxee duñu am ku leen jottaliin. Mhm. ndax kooka de na mu gisee ak ni ñii di gisee du bokk. ñaareel ba itam bon du ma ko neex ta wax mais dañoo dem ba politiser li nga xam ne mooy secteur boulangerie te lool war ta mën a nekk diggante fédération yi ak seen président yi. tey ngeen xam leen ne di ngeen amal ñaari fan yi nga xam ne di ngeen ko bank seen yoxo euh, bu yàggul rek déggoon nañ leen fi ngeen annoncé moo mot d'ordre bi waaye mu ba da ngeen koo daal di dàq lu xewoon. dafa fekk ne boobu ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu yónni mission ñu jëm ci biir réew mi. Hmm. Euh, seen mission bi ñu ngi ko waroon def ci weer mais dafa mujj am retard ba tax mënuñoo def réunion yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo war ndax il fallait ñoo am retour base bi. Mm-hmm. bi ñu ñëwee alxames ba nag samedi def nañ suñu point de presse annoncé que mardi ak mercredi du ñu defar mburu sur l'ensemble du territoire. waaw ndax euh, mot d'ordre boobu dina am benn euh, impact ci lii di njaayu mburu bi. am nañ ci yaakaar ndax euh, boo gisee ni ñu fekkee boulanger yi. Mhm. ñoom ñëpp joxe nañ seen kàddu. ñoom ñëpp foo ci dem rek joxe nañ seen kàddu waaye yemuñu ca dañuy yëkkati xaalis jox leen ne leen jox waa mission bi ne leen mission bu noble ngeen di liggéey te loolu amul FNBS laa bokk amul RBS laa bokk boulanger yëpp la ndax tey dafa am lu ñu boole ñun ñëpp muy laa difficulté coono. Mhm. dañoo sonn ñun ñëpp te loolu amul FNBS laa bokk ak RBS moo tax boo wootee ñëpp a lay kon da nga bëgg a ne amul ci biir association la bokk ci biir association grève bi boo mayul dina tar ndax boulanger yi am euh, defuñu xàjjeeg seen ci fu ñu bokk fu ñu bokkul dañoo génn rek pour wane seen nakar effectivement fii nga may wooyee nii maa ngi ci boulangerie boo xam ne kilifa ci boulangerie moo ko moo ko moom boulangerie depuis mille neuf cent cinquante neuf mi ngi liggéey waaye masta bokk ci benn fédération te hmm. actuellement joxe na ci xaalis loo xam ne kenn mësul gasoil bi ñu doon lakk yépp moo ko joxe presque hmm. te loolu amul fédération bi naka noonu fépp fu ñu dem boulanger yëkkati nañ seen xaalis nañu yéen seen combat bi dafa noobi am leen dem leen ñoo leen jox seen kaddu bis bi ngeen ne ñu tëj ñëppay tëj hmm. tey jii képp ku son rek da nga tëj monsieur Faye man li ma jaaxal mooy tey euh, boulangerie euh, dañ ñu naan secteur bi dafa bëri jafe-jafe te kenn du ci jaay euh, donc am ci xaalis à ngeen di liggéeyee te foo gëstu gis boulangerie léegi gën naa bëri daanaka. li ko waral mooy dafa am ay jamono bi farine bi yombee. Mhm. Sénégalais yi dégg nañ ne boulangerie am nañ xaalis ñëpp dugg ci bon demeewul noonu sax nuñ koy waxee mais. ñëpp tàmbalee dugg waaye tey jii boo seetloo constat bi. Mhm. boulangerie bu ubbi diggante deux mille ak léegi rek tëjaat la. parce que départ amoo loo départ amoo itam euh, la nga fa yaakaaroon fekk si woo ko waaye problème boobu c'est réglé parce que tey. Mhm. réglementation bi def ne cinq cent mètres boulangerie kenn mënu faa sampa beneen boulangerie donc problème boobu vraiment. c'est déjà réglé entre temps itam képp ku ubbi woon ñam nga xam nga ne demewul niñ ko foogee woon bu njëkk. Mm-hmm. tey ngeen euh, bëgg ki nga xam ne mooy jëwriñ gu ñu euh, dénk wàll jënd ak njaay di ministre du commerce tekki ndombal tànkam lu ko waral. lu raw loolu lañ bëgg mooy ñu tekkil ko ndombal tànkam. Ah. ça ça fait deux. dañoo bëgg président teggi ko fi tegal ñu fi koo xam ne kii def ñu déglu. ndax tey jii ñu moom la muy wax ak li ñuy wax bokkatul ñoo bokkoon ca début ba ndax moom bi muy door a ñëw rek dafa fekk mburu eh, farine yokku hmm. mu ñëw fekkee problème bi nu caa wax tax premier ministre recevoir ñu hmm. lañ fa waxante woon ca la daan dox waaye dafa dem ba finalement doxatu ci ndax hmm. fi mu toll nii ay bajjani gox lay dajale ak i chef de quartier pour ñu waxtaani mburu alors que les vrais acteurs que nous ñun ñii wax dëgg na yàlla tege nañu de côté parce que yëpp euh, am na mouvement bu mu créé GIE bu mu jaay mu mburu boo xam ne wax dëgg na yàlla bokkul ak ñun ni ñuy distribuer mburu dëgg la booy mais loolu bañ koy def ci jamonoy mbas mi ba muy gën a tar fii ci mim réew la woon te it ñu bëgg hygiène ci li nga xam ne mooy jënd ak njaay mburu mi moo tax ñu taxawaloon plateforme boobu wala. waaw moo taxoon plateforme bi c'est bien mais nam ko defee baaxul. ndax booy def plateforme bu tol noonu te yëgaloo ko boulanger yi. Mhm. déjà def nga erreur. ñaareel ba dañoo tere ay livreur livreur yooyu ñu dindi leen. foog am ay perte d'emploi mhm. ne yooyu dañuy créer ay emploi yu bees moo tax ñu créer jaay mu buru dañuy set euh, euh, dañuy jéem a setal livraison bi. Mm. dañ koy euh, xaw ma nan laa ko mën a tuddee ci olof mais dañuy jéem a xool organiser waat livraison bi. Mm. tax na ñu jaay def jaay ma mburu dañuy def e-commerce maanaam nit ki woote par internet ñu indil ko mburu ci këram. Mm-hmm. tey jii ñu ngi ci box yoo xam ne da ngay duma leen defal sax publicité mais en tout cas dañuy lay indil mburu sa sa buntu kër. Mm-hmm. waaye loolu boo koy def te fekk na am na livreur yu fi nekkoon ñaar fukki at yi fanweeri at ñi fukki at. mais jël ñooñu nga jox leen ay moyens impliqué leen ci biir ñu liggéeyee noo xam ne ñoom duñu du duñu lésewu ci biir mais état dafa ñëw teggi ñooñu fële indi gis na ne manne financière livraison c'est cent vingt cinq millions jours au Sénégal nga bëgg ci accaparer wu tax nga créer say GIE mbir mi du doxe noonu ñaareel. ndax jëlee ko fi dina soppi xaru kanam euh, secteur boulangerie. xam nga ñun liñ bëgg rek mooy koo xam ne day déglu boulanger yi te bañ a déglu président d'association yi nay déglu les boulangers. xal am nañ ay agent acher ay agent assermenté yu dëgg dugg ci dëkk bi di wax ak ñoom am na contact DC yi xam na baax secteur bi ki fi nekk actuellement ah. dafa maîtriser secteur boulangerie comme këyitum tiim xam na lépp donc nañ xool ba xam li boulanger yi soxla ñu koy def bu ko deful nañ ñu ko fi teggil indi ñu koo xam ne kii bu ñu waxee mu dégg te même bu ñu waxut it bu yónnee ay agent dina xam li secteur bi laaj. Mhm. Djibril Faye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfal. ñuy fàttali ne yaay vice-président groupement boulanger yu Sénégal merci. effectivement merci à vous.